dal leen ak jàmm wàllu politique rapport cour des comptes ak yeneen xibaar moo gën a fës ci yéen kaay génn tey jii nii yéen kaay di 24 heures moom dafa def taxaw seetlu ci ñetteelu mandat bi nga xam ne kat fi mu toll nii mooy ay di njàmbat li leer ba leer kat suñu naataango yi di bind ne fi mu toll nii ñu ànd ak Macky Sall li ñu bëgg rek mooy force ko mu def ñetteelu mandat kii di maître de conférence ci université Anta Diop bu Ndakaaru di Khadim Bamba Diagne moom yëkkati ay kàddu ne kat Sénégal yi xam nañ bu baax baax lu jëm ci wàllu vote bi ndaxte kat ku ñu voté rek ñaari mandat lañ lay sas ba tey ci wàllu mandat boobu kii di Aïssata Tall Sall moom yëkkati ci ay kàddu nee na kat yëf yi moom mbiru mathématique rek la a a moom dafa taxaw ci defaraat banqaas yooyu askan wi nee na am na jéego boo xam ne jan nañ ko cee teg loolu sax mu gën a fës ci yéene kaay bi suñu naataangoo di ci yokk ne kii di ay ne mbooj kat boo defoon dara moom mu jiite kuréelu jigéen ñi ndaxte kat loolu jot a ruusee ci ndaje mi nga xam ne amaloon nañ ko démb donte moom ay démb ca fekkee ko ndaxte kat dafa amaloon ab tournée tey ji nag ñoom la xam ndaw ñi kan moo leen jiite ñu des ba tey ne bëgg nañu amal nag ay tëggi bool ak yëngatu loolu nekk ci waxtu yi nga xam ne kat njiitu réew mi dafay yëkkati kàddu jëmale ko ci askanu Sénégal waa Benno Bokk Yaakaar def communiqué ne li ni mel kat li nga xam ne kat moo nekk institution république bi benn bokk yaakaar seen bëgg-bëgg leen rek la jóg taxaw temm mobilisé wu su ko defee rek jàmmaaru opposition bi nga xam ne kat yàq der rek moo ko tax a jóg ndaxte kat seen bëgg-bëgg moom mooy xaaj Sénégal ñaata duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg li ni mel tam moo gën a fës yéene kay bi bés bi le jour rapport cour des comptes Ousmane Sonko yëkkati ci ay kaddu ci li nga xam ne kat mooy ay di njàmbat ci ab déclaration xam def na ko démb na toll ci ñaar fukki simili l'observateur di fasal ne kii jiite parti bi di Pastef moom dut na kat moo tax nag rëq-rëq rek jafe-jafe am ci wàllu ni ñu téye kopparu Covid bi Ousmane Sonko di fàttali moom li ni mel waxoon na ko bi mu génnee audience diggante moom Macky Sall loolu nag jëm ci wàllu Covid bi Ousmane Sonko yemul mbala at mu nekk corps de contrôle yi génne ay rapport waaye nag du mujj fenn moo tax Ousmane Sonko joxoñ baaraamu tuuma kii di président Macky Sall maire si gi coor bi yemul foofu nee atum ba léegi lu toll ci juróom fukki scandale a ngi nii kat ñu koy fësal waaye ba léegi ñu ko def nag dara fekku leen ci ba tey ci wàllu yéene kaay bi di réew mi quotidien di fësal ne docteur Babacar Niang moom bu jiitee sàmm jox na ci xalaatam moom mi nga xam ne ko tey jii nag moom am na dëgg ci ñi nga xam ne kat ñoo ko doon topp moo tax sax mu bëgg a yóbbu nag yëf yi ci wàllu yoon su ko defee rek ñu leeral li nga xam ne kat moom la cour des comptes daal di fësal ba tey ci wàllu woowu yéen kat bi la tribune di ne ñaan la nguur gi kat dañuy joxeñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne kat ñooy waa cour des comptes seetal nag ñi nga xam ne kat la ñuy topp

parquet moom dafa delloowaat soon Pape Alé Niang ci kaso bi nañ kat dafa sàmmtul woon ak li nga xam ne jëm ci wàllu contrôle judiciaire bi di fàttali kat moom ñu ko tegoon loxo juróom benn fan ci weeru novembre loolu nag ci wax xibaar yoo xam ne kat du dëgg mbirum conseil des ministres décentralisé ak journée de l'élevage Macky Sall mu ngi ca Tambacounda war fa def juróomi fan yéen kab di quotidien national Le Soleil di fësale aksi na démb ca Tambacounda war fa amal nag conseil des ministres décentralisé ak tamit journée de l'élevage waaye fi mu toll nii Promoville def na ci liggéey bu am solo ci dëkk boobu nga xam moo nekk Tambacounda président Macky ak gouvernement dem ca Tambacounda jëm conseil des ministres décentralisé ak tamit yeneen activité nga xam ne que jotoon nañ ko faa def ñaar fukki le soleil di fësal ni Guédiawaye Casa Sport ak jàmbaar fi mu toll ñoo jiitu ci wàllu championnat bi ñoom ñëpp kat dañoo gagné ci wàllu dixième journée bi dëgëral nag seen place yéen i cabine de collecte yokku ne amul benn coppite boo xam ne am na kat ñi jiitu woon ñoom dañoo gagné ba tey des ko ñu naataangoo yi di waa record di fësal ne Aliou Cissé moom moo yëpp équipe nationale bu Sénégal ci wàllu CAN 2024 loolu nag Augustin Senghor moo ko xamle nee na kat loolu projet fédération la seen bëgg-bëgg leen bi Bonjour à tous. politique, le rapport de la Cour des comptes et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce mardi. Selon le quotidien 24 heures, la mouvance présidentielle est en train à briguer un troisième mandat. Maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Khadim Bamba Diagne indique que le peuple sénégalais est dans de nouveaux paradigmes sur les questions de mandat. L'invité de et stratégique. Et chaque fois qu'ils choisissent un président, c'est pour deux mandats. Dans le quotidien critique, Aïssata Talsal soutient que la question du troisième mandat n'est ni juridique ni politique. elle est seulement mathématique en attendant 2024 les coalitions et partis politiques se préparent Source A s'arrête sur la structuration de Yewwi Askan Wi un nouveau pas posé c'est le titre qui barre la du journal selon mon confrère Aïda Mbodj est bien partie pour diriger la structure des femmes alors qu'une réunion présidée par Habib s'est tenue hier elle a été désignée par ses sœurs une décision qui n'a pas encore été entérinée parce que l'ancienne mairesse de Bambey en tournée nationale depuis quelques son programme selon nos confrères de Source A la coalition Yewwi Askan Wi a décidé d'organiser un concert de casseroles le décembre prochain date à laquelle le président Macky va faire son discours à la nation une attitude de l'opposition fortement critiquée dans un communiqué Benno Bokk Yaakaar pense que les leaders de Yewwi Askan Wi appellent à s'attaquer à l'institution du président Macky la coalition Benno Bokk Yaakaar tous les camarades à la face à la manipulation et à la surenchère d'une opposition violente qui multiplie les actes de défiance contre notre comme vouloir de vie commune. Concert le Yewwi contre le message à la nation, le son républicaine de Benno Bokk Yakaar, écrivent nos confrères de Besbi le jour. Rapport de la Cour des comptes, Ousmane Sonko s'est joint au concert d'indignation soulevé par les manquements révélés par le rapport.

produisent des rapports sans suite. Dans le quotidien Besbi le jour, Ousmane Sonko déclare que c'est de la responsabilité de Macky Sall sur les manquements dans la gestion des fonds force covid Dans le quotidien Source A, le maire de Ziguinchor révèle que c'est Macky qui encourage ces manquements car depuis près de scandales ont été recensés, mais les auteurs sont toujours en liberté. Nos confrères de Rewmi Quotidien s'arrêtent sur les révélations du docteur Babacar Niang. Il des fonds. le directeur de SAMU avait été convoqué à la brigade de recherche pour avoir déclaré que du matériel médical destiné aux structures publiques était vendu à des privés. Avec le rapport de la Cour des comptes, il crie victoire pour avoir alerté mais en vain. Il compte saisir la justice sur le laxisme de l'État ayant provoqué la mort de citoyens. Selon nos confrères du quotidien La Tribune, le gouvernement se blanchit et noircit les vérificateurs. Face aux toilettes soulevées par le rapport, le ministre des Finances est monté au créneau pour mettre les points sur les i. Selon critique, non seulement Moustapha Ba a disséqué le rapport, mais il a aussi assuré que le gouvernement donnera une suite il avait repris la grève de la faim après son retour en prison. Selon la CAP, il est dans un état critique. Le journaliste, dans un état critique, évacué à l'hôpital principal de Dakar, écrivent nos confrères du quotidien Libération et de heures. Le parquet de Dakar avait annoncé le décembre dernier, dans un communiqué avoir révoqué le contrôle judiciaire de Pape Alé il avait justifié cette décision par les sorties médiatiques du journaliste, qui sont une Il a été arrêté le 6 novembre dernier pour diffusion de fausses nouvelles, entre autres. Conseil des ministres décentralisé, journée de l'élevage, Macky Sall à Tambacounda pour 5 jours. Selon le quotidien national Le Soleil, Macky Sall est arrivé à Tambacounda pour un programme de 5 jours. Il va présider le conseil des ministres décentralisé et la journée de l'élevage à Tambacounda. Promoville balise la voie à Macky Sall, selon Source A.